Babou Kaling moo woon ginnaaw Cheikh moom nga lool Dakar ak Fatick arbitre bi sifflé na mbokk yi ndeysaan finale drapeau chef de l'État bi noonu dox ci diggante Cheikh Sadibou Sarr ak Babou Kaling Babou Kaling moom la woon moom nga jàkkaar lool Cheikh Sadibou Sarr Kaling Cheikh Sadibou Sarr Kaling Cheikh Wade Babou Kaling daan na wala déet wala boog wala boog wala na saako yi Cheikh Sadibou Sarr génn na saako yi bi sifle waat na Babou Kaling Cheikh Sadibou Sarr ci wàllu bi ña nga ak Fatick Ndeysaan ci teewaayu ministre des sports Moussa Matar Ba daaw lu xew lu xew daan na daan na daan na ko daan na ko daan na Cheikh Sadibou Sarr daan na wala ndeysaan wala déet génn na saaku yi ndeysaan waaw jaadu na arbitre bi sifflé woon daw na jëli ko daw na jëli ko daw na sàcc ko daw na sàcc ko daw ko wër na ko ndombo wër Kaling wër na daan na ko Babou Kaling daan na Cheikh Sadibou Sarr Babou Kaling daan na Cheikh Sadibou Sarr Babou Kaling daan na Cheikh Sadibou Sarr dañuy bindu recours na dañuy bindu recours arbitre bi nga waaj a sifflé mbokk yi deuxième combat ci drapeau chef par équipe dox ci diggante Ismaïla Diop ndaysaan ak Mbaye Diop ndaysaan dox ci diggante Dakar ak Fatick Ismaïla Diop Mbaye Diop ñoom ñaare ngi noonu ñaari jóobi ndeysaan Ismaïla Diop Mbaye Diop mbokk yi ñu ngi noonu dakaar ba ak Fatick Dakar am na benn ndam ci kaw Fatick Fatick da koy jëli wala déet na leen dem xool ku wànnante di mujjee ki gëtam Ismaïla Diop Mbaye Diop ndeysaan Ismaïla Diop Mbaye Diop mbokk ñu ngi ci 76 kilos Ismaïla Diop Mbaye Diop Dakar ak Fatick ñoom ñaar ñu ngi ci combat Dakar Fatick faqat na ko faqat na ko Ismaïla Diop Mbaye Diop daw daw na jëli bañ na sol na ko Ismaïla Diop Mbaye Diop daw na jëli sol na ko sol na ko lum nar def sol na ko Mbaye Diop Ismaïla Diop ñu naan ko bëreel Mbaye Diop Ismaïla Diop ñaari njóobeen yee ngi ci combat bi ba tey ndaysaan génn nañ ku génn avertissement pour Ismaïla Diop Fatick ci kaw Mbaye Diop Dakar ñoom ñaar nañuy def Ismaïla Diop daw na jëli Mbaye Diop ndeysaan Dakar ak Fatick ñu ngi ci compétition bi par équipe finale drapeau chef de fii ci Diourbel stade Elimane El Fall bu Diourbel tol na ko Mbaye Diop door na ko tànk mu bañ ak Ismaïla Diop ñoom ñaar a ngi nii Ismaïla Diop sol na ko arbitre bi atte na bi jeex na ndaysaan arbitre bi départagé na ñaari xale yi ndaysaan bi na ñaari mbër yi ndaysaan noonu dox ci diggante Mbaye Diop ak Ismaïla Diop ndaysaan final drapeau chef de l'État par équipe ndaysaan Mbaye Diop wër na Ismaïla taxaw fi Ismaïla taxawoon Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla ndeysaan na nga noonu final drapeau chef le chef de daw na jëli ko Ismaïla daw na jëli Mbaye Diop Mbaye Diop bañ na Ismaïla sol na ko sol na Mbaye Diop da koo bëgg a génne bañ na fàqat na ko xale yaa ngay bëre dañoo bëgg mu jeex Mbaye Diop ak Ismaïla Mbaye Diop daw na jëli tànk bi jël na tànk ba Ismaïla jël na tànk Mbaye Diop Ismaïla jël tànk ba Ismaïla jël na tànk ba Ismaïla jël na tànk ba Mbaye Diop bañ na wuree nañ ci bëre laa ilaaha illallah xale yaa ngay bëre Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla ñaari xale yi bëre nañ final drapeau chef de l'État mënul yomb Serigne Ndiaye dégg nga ne yegg Doudou Sané ngay wax ku ci nekk ngay wax ak mbër mi nga indi Mbaye Diop capitaine bi Doudou Sané la Ismaïla bi Mbaye Diop capitaine bi Serigne Ndiaye 2 la Ismaïla bi Doudou Sané la ñoom ñaara ngi noonu ndeysaan nee na ko teeyal Serigne Ndiaye naan ko teeyal bëreel Doudou Sané naan ko jëli ko combat bi dina metti hee final drapeau chef de l'État mënul yomb lan mooy départager ñaari xale yi lu leen di départager Mbaye Diop Ismaïla lan moo leen di départager Mbaye lan moo leen di départager temps bi jeex na wala déet lan moo ci des bu temps bi Mbaye Diop mooy gagné Ismaïla ndaysaan Ismaïla fàqan na daa bëgg a bëre Mbaye Diop na ko mu bañ Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla ñu ngi bëre combat bi yombul ñaari xale yi dañoo joxe ku ci nekk bëre na ña ngay wax de ndaysaan perkate ngay wax moo indi Mbaye Diop Dakar Ismaïla entraîneur baa ngay wax ñoom ñaar mënul yomb ña ngay wax ndaysaan ña ngay wax équipe baa nga na yegg rek yombul fàqat na ko yegg nañ suuf génnee na ko bañ na Mbaye Diop <laughs> waaye ñaari temps ba jeex na temps ba jeex na Mbaye Diop gagné na Ismaïla Mbaye dugg na ci géew bi daa tiit sama papa as Moustapha Gueye na ci géew bi Dakar 2-0 2-0 pour Dakar 2-0 pour Dakar. merci le sëñ Fallou Mbacké merci à sa délégation qui a accompagné Abdou Diagne Abdou Diagne pour ñëw fi tey jàppale Serge bu Diourbel sëñ Fallou jërëjëf Abdou Diagne merci beaucoup mais merci également à madame Mbaye Ndéné Ndiaye Ayotou Ndéné Ndiaye ca Mbacké Bawol elle a réussi tubaarkàlla par le président des amateurs et bopp le président des amateurs Doudou Diagne Diagne Diagne Amambay Diaw andi 40 ans Tony Junior arbitre bi ngi waaj chef de l'État par équipe bandi 40 ans Junior bandi 40 ans Fatick Junior Dakar jàpp Bandi 40 ans Tony Bandi 40 ans Tony Tony jël na ko Bandi 40 ans mbot na ko Bandi Tony daan na ko Tony daan na Bandi 40 ans Tony daan na ko Tony jël na drapeau chef de l'État dernier moment génne ci drapeau chef de l'État ici à Diourbel Tony ndeysaan Tony ngi noonu Tony ngi noonu Tony noonu Tony ngi noonu Tony ngi noonu Tony ngi noonu ndeysaan ma ngay kàppar ma ngay kàppar Tony na Tony kàppar na hee rëkk na om ya ci suuf. mbokk yi ñu ngi ci 100 kilos yi Famara Sarr ak Mamadou Pouy Mamadou Pouy Dakar. Famara Sarr Fatick Modou Pouye ak Famara Sarr adu na catégorie kilo baa ngi noonu dox ci diggante Famara Sarr ak Modou Pouye daw na jëli daan na daan na ko la ilaha Eh, daan na ko daan mbokk yi drapeau de l'état bi kii di Dakar jël na ko mu des combat bi des ci diggante Serigne Ndiaye ak Doudou Sané waaye Serigne Ndiaye comme na drapeau chef de l'état buggul bëriwaat ak Doudou Sané une troisième fois parce que gagné na ba noppi. mais dafa mel ni Serigne dafa blessé ci loxo gaañu boobu mu gaañu ci loxo moo waral mu ñëw ci cimekaay bi taxaw Doudou Sané ma ngay jooy ndax nee na Serigne Ndiaye daa war a ñëw ñu bëre ñoom ñaar boo mënee ray ma la mënee ray la loolu sport la bu mel ni Fass ku ne xam nañ leen ci xarañte ci wàllu bu mel ni Moustapha Gueye ku mu indi kati indi la xam nga ne lii mënul ñàkk ci sport bi moo tax gis nga ku mel ni Serigne Ndiaye de ma nga dem ci arbitre bi médecin bi Adama nañ gis nga ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu Doudou Sané daw na Doudou Sané dem na. am na lu muy moom Doudou Sané nee na daa war a ñëw bëre Serigne Ndiaye nanguwut a bëre lan la lan moo ko gaañ ci gaañ Serigne Serigne Ndiaye mu ngi noonu Adama nee loxo bi baaraam bi moo damm baaraam bi moo damm lañ wax nee na bi moo damm ndaysaan lan la médecin bi wax nee na Serigne Ndiaye du bëre dañuy jox loxo bi dañuy jox waaw arbitre bi day yëkkati loxo Doudou Sané Adama ndeysaan Dakar jël na drapeau chef de l'État arbitre bi day yëkkati loxo Doudou Sané mbokk arbi bi day yëkkati loxoom Doudou Sané am na ndam Doudou am na ndam bañ na mer na ndeysaan nee na bu leen ndeysaan nee na bu leen ma jël na drapeau chef de l'État ici à Diourbel 22e édition ndeysaan Dakar jël na ko jël na ko ndeysaan jël na ko